dal leen ak jàmm ami site internet yooyu li buzz HD gën a fës ci bopp xabaar yi nag dañ koy door rek yéen bi di source a moom nag la mu di ba tey rek bu xam ne rek mooy kii a la bu Sikicoor xiifal bi nga xamante ne amoon na ko moo tax nag jamono ji mu néew euh, doole lool wante ñi nga xamante ñoom ñooy docteurs yi nag pare nañ rek pour defal ko perfusion boo xamante ne dina jotaat wér-gu-yaram buñ moom nekk njiital groupe Futurs Médias moom nag daal dinay émancipé rek génn ci boobule coalition Benno Bokk Yaakaar ba tax na nag moom Youssou Ndour jamono ji nag la muy ruumandal rek mooy propre mouvement bi di fekkee ma ci boole mel na ne rek ba tey bu ñu sukkandikoo ci boobule source mi ñuy xamal moom mooy conseil d' administration bu groupe Futurs Médias jamono ji nag euh, relation ak Macky Sall bu dëkkoon sëy rek mën nañoo jàpp ne boobule sëy euh, tas na ndax li nga xamante ne nag moom mooy yenn kaay bii di Les Échos moo ko daal di xam ne a waxtaan bu yaatu boo xamante ne rek sekkoon na ko ak président Macky Sall mbir mu nu mel nag ci ab entretien la daal di fësal na nag démissionné na nekkatul benn yoon nag li nga xamante ne moom mooy ministre conseiller bu Macky Sall du ñàkk dinañ ci ñëwaat ci yeneen seeni jotaay xabaar jërë ngeen jëf ci teewlu bi bu leen fàttee abonné bés cloche de notification ngir amaa yeneen info